waaw Médine muy Médina ku weddi laaj ko sama maam xale Médine dañoo daje mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias ñu ngi fii ci Médina ci rue 6 angle 15 tey nag li fii bokk na ci xam ngeen ni Médina am na téeméeri at ci 1914 ba 2014 loolu di témériat at yoo xam ni quartier bii di Médina am na ko groupe Futurs Médias ak télévision Futur Média fas yéene ci ànd ak yéen ci ay reportage yu am solo ndax itam bokk na ci li gën a mag ci groupe bi muy rajo bi di journal bi fii la nekk ci Médina loolu nag tax na tey ñu fas yéene ci ànd ak yéen fii ci Médina ci rue 6 angle 15 Médina nag ni ngeen ko xamee commune d'arrondissement la boo xam ni ñu bari ñu ñu ràññee daanaka ci wàllu politique ak ci wàllu culture bari nañu bokk na ci Youssou Ndour ku ne xam na ni doomu Médina la Adja Aram Dieng itam ci wàllu politique nekk nit koo xam ni ku ñu ràññee la ci wàllu politique nekkoon ci parti socialiste reportage bu am solo Aminata Mbaare Sow def na ko ci ñu ànd teewlu ko ak Jafara Ba. ci wàllu histoire. premier sëriñ Ndakaaru euh, Medina fii la dëkkoon mooy Alhaji Ibrahima Diop moom sama waajur man Alhaji Ama Lañ Fay ñoo daan ànd. vers les années cinquante sept cinquante amoon ñu ay célébrités yu fi nekkoon ñooñu nekkatuñ fi léegi. le cas de Lamine Gueye le cas de Mamadou Dia le cas de Senghor fi la nu fekk ci kër gi parce que kër gi kër kër kër politique la woon. ci kër googule nekk ci rue 22 angle 31 Médina la beneen célébrité fekk baax kooku di Youssou Ndour. fii la juddoo fii la yaroo fii la ndeyam juddoo la yaroo moom kay fii la cosaanoo rek. Médina di dëkkub cosaan ak aada góor gi di porte parole famille Seng Seng di ko dëggal. rue 23 angle 22 Médina. fii moom mooy kër cosaanu Seng Seng kër Gumaalo waaw mooy fii mooy cosaanu Médina fii mooy digg-digg Médina lépp lu nuy et képp ku falu Médina fii moo lay fal parce que ñun ñoo lay yóbbu ak suñuy ndënd jëm euh, tëggal la euh, introniser la. beneen kilifa bu juddoo màggee ci Médina di Adja Aram Diène ndem si yàlla si mu ngi dugg ci politique ci atum 1948. doonoon kàngam gu màgg lool ci wàllu parti socialiste. ci tamu BDS moom moo nekkoon ak Adja Ndumbe Ndiaye bi créé woon faamu BDS yi ñu ànd di liggéey di dem Sénégal yëpp ànd ak Senghor ba moom ñu fal ko union régionale. ci 1970. El Hadj Malick Sy Souris di Alou Doudou Ndiaye Rose lim bi takku na jaar-jaar yi bëri na ñooñe ñëpp nag doon ay doomu Medina. Medina di dëkku aada ak cosaan ci téeméeri at yi muy màggal yenn ci taax yi fekke lu bëri ci histoire fu ci mel ni bërëb bi dalal jumaa El Hadj Omar Foutiyou Tall ak tamit fi cité police nekk tey. jàkk jooja maison des jeunes la woon. Alaaji Alaaji Alaaji moom ci boppam mës nay doxantu ñëw ba ci foofu laajte mu ne waaw yéen place bi place bi fan la ñu ne ko fii de mooy kër maison de jeune mu ne luy maison de mu ne kër xale yi mu ne ah déet fii kër xale yi kër mag la mu mel ni moom ci moom tam Seydou Nour dafa xamoon ne bis mu fi jógee foofu lañ koy denc. Thierno Seydou Nour ñu ngi ko indi fii 1980 25 janvier 80 la génne lañ lañ ko indi fii. après ci lañu nag tàmbali jumaa yi ak liggéey bi yëpp ci ginnaawam loolu moo continue ba tey. tey jii fi maison de la culture Douta Seck nekk doonoon fu kilifa yu bëri jaar. Douta Seck Douta sekk bii nag kër commandant la tuddoon parce que commandant moo fi dëkkoon waaw administrateur. après daal dañ doon kër Mamadou Dia waaw kër Mamadou Dia moo fi nekkoon waaw Mamadou Dia daal foofu lañ ko indi woon fii di stade Iba Mar ak tamit hôpital Abass Ndao bokk ci démbay Médina ñaax ci notable yi fekkee démb di ko fàttaliku. ay ndondi ñoo fi nekkoon ñoo xam ne dañ leen jëlee woon sa àll ba comme ay militaire rek indi leen fii ñoo daan euh, nettoyer yooyu ay alkaati ñoo nekkoon foofu ñu tudde ko Karawaase waaw noonu la tuddoon stade bi. Guks nekk fi comme maire def fi Abass Ndao Abass Ndao bi hôpital Abass Ndao rëpp mu ñuy wax recommandé la tuddoon. ci Médina la ñuy des ba tey ñu ngi ci rue 6 angle 11 euh, Médina nag ku ko wax di nga wax marché Tilène di nga wax beneen marché itam boo xam ni euh, muy marché Soumbédioune mu nekk ay marché yoo xam ni ay marché traditionnel lañ marché cosaan lañu euh, ci biir marché yooyu nag am na lu ñu ci gën a ràññee muy awsa yi ak ni nga xam ne noonu la ñu fiy taxawee waaye itam uude yi ci seen wàllu taxawaay seen liggéey itam nag liggéey bu leen di jural. Euh, wàllu koom ñu bari itam gis ni liggéey bu am solo la waaye bu ñu ñëwee nag ci kanaalu kanalu Soumbédioune bi nekk na loo xam ni ñi fi nekk ñëpp di ci dund daanaka rafetlu wu ñu nekk nam fii euh, ci Médina Nafissatou la def na ci reportage. en tout cas Thierno Laurent Mendy ak Youssou Bar Médina di koñ bu ñëpp xam ndax ay marchéem yu mag ñu yàgg fa loolu tamit koom gi di fa suqaliku saa su nekk marché Tilène bokk ca Médina mu di jàpp bu ñëpp xam ña fay jaaye gis ni dara manqué wu fa seen koom di naat ndax li mu am tur. marché bi day waxuma la siiw na mais wër na àddina bi moom nag dafa nekk euh, kile cosaan marché cosaan. comme buntu Dakar la ne léegi dafa nekk ci coin boo xam ne c'est stratégique yoon yu bëri dañ fiy jaar Tilène mooy marché unique boo Dakar xam ne loo ñëw am na lépp loo soxla rek mën nga fay gaare mën nga fi kii ba pare da doo dem feneen ndax par exemple fii boo ñëwee exemple fii am na marché or te amul feneen amul amul kastoor amul feneen loo rek un exemple la jaaykatu yàpp yaa ngi fii papeterie yi ñu ngi fii jaaykatu fruit boo déjà ñu lay jox adresse sax dañu lay wax ne ñëwal ba jaaykatu fruit yi nga wooñu aw sa yi benn yoon noonu la ñu fa nekk ba nekkee ni sii di fay jaay. jaay bi alhamdulilah rabi ala ñu ngi koy suturoo lépp li ñu bëgg rek tubaarakallah yàlla mu ngi koy am. ba tey ca Medina koom gi di fa dox bu baax uude yi fay defar dàll di koy firndeel. Sénégalais yi ñu ngi koy jënd ñeneen étranger yi aussi am na ci ñoo xamante ne bii ñu ngi koy ñëw di ko jënd. ñuy jóge ay Malek ay Guinée ay Burkina Côte d'Ivoire ñoo ñëpp ay Congo. dañ fiy ñëw di fi jënd ay dàll. Soumbédioune nag siiw loolu ndax tefesam ak marché jënam waaye léegi ña fay jaayee gis ni mbir yi demetul noonu ndax tunnel bi. wax dëgg yàlla dana dox bu baax da doon dox bu baax waaye nag léegi moom am na lu ci gàllankoor. am na lu bari lu changé surtout tali bi. suñu marché bi def xaw naa dee tuuti ndax client yi dañuy naan ni romb noon dem rek moo leen ganal ñuy dem ba cour de station di ñëw wàcce jënd jënd day bu ñu ganaloon mooy marché bi am yoon boo xam ne bu jógee Dakar directement day ñëw dugg sumbu Soumbédioune. gannaaw reportage bi aju ci euh, marché yooyu muy Soumbédioune ak Tilène dañu dellu ci Médina ci boppam ci 1914 la ñu ko créé woon 1914 la ñu ko créé woon euh, quartier bii di Tilène nag ñu tuddee ko Médina euh, kon ca dañoo teel ga ti leen la tuddoon. loolu nag ki ko defoon moom mooy euh, ki nga xam ni ku nekk ràññee na ko ci wàllu diine euh, muy Seydi Hadji si moom moo jàppoon ni leen war naa mën a tudd euh, Médina Médina nag mu jëlee ko ca dëkk bu sell ba di Makkatal Mukarram loolu nag tax na bi itam ñu ciy fàttaliku waale Médina gi fukk ak ñaari penc yi nga xam ni ñu ngi woon fii te itam biñ leen di tuxal ca jamonoy peste bala woon kenn fàttewu ko loolu nag amoon ci càkkutee fu ñu fi nekkoon di nasaraan yi fàttaliku gi ànd ak Ibrahima Camara ak ci benn arrêté bu ñu duppee numéro 14 67 si la ñu sanc dëkk biir Médina fukki penc ak ñaar nekkoon biir Ndakaaru gouverneur William Ponty jël dogal toxal ci juróom-benn penc yëpp yóbbu leen Tilène. ba pest bi ñëwee ah nee nañu bi mi ngi dugg fii euh, si année euh, ver mais le 3 mai la xaw a dugg ci ci ci ci localité boobu ñuy wax ci kaw euh, plateau. ñu toxu si sa atum 1914 dikk si Tilène. amoon ay déeg ak i till yu bari dëkkuwaay bu bees boobu lébu yi namu ko wutal aw tur bu gën tilleen turu Medina gi alaaji Malick moo ko jox lébu ne leen foofu ngeen jëm tey moo fee yem tilleen googu wax wax naa leen tur bu gën tilleen tuddee leen ko Medina tilleen kooku nag exactement histoire la. jógee nañu Dakar ñu toxalee ñu Dakar andi li andi ñu fii ñu dee ko tilleen fii marché tilleen bi nekk. fi marché bi nekk nii dañ fi daan napp ay jën ndax dex la woon bu guddee nag coow yi bari till yi di di di kii ñu ne ñu ñu dañ leen doxalee Dakar waaye ñu ko ci till ya mag ñi def bu mag dem seeti Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala Tiwaawan ñu ne ko daal ñu daal dañu toxali biir Dakar ndax tubaab yi dañu toxalee foofu indi ñu tilleen mu seetal leen ne leen bu subaa bu ngeen demee da ko tuddee Medinatul Munawwar Medina. lébu gi xaaj ñaar waaye Ndakaaru doon benn. ñuy sumbandoo di àddunaan lakkun faakun ñaakun ñawoon lawoon fawoon Médina am wàllu am solo si ndakaaru fii si pencum ndakaaru ñu fi fale grand serigne de ndakaar muy chef suprême collectivité lébu ndakaaru Jal Diop Jal Masamba Kokki Diop Kokki Njaga Issa Jolof Ndakaaru Médina ak armeel yu mag yi nekk fii muy armeel yu Soumbédioune yi yooyu armeel nag ca 1972 lañ ko fi samp ba tey mu nekk ay armeel yoo xam ni ba ñu ko fi sosee ak léegi itam daanaka yàgg na waaye bi ñu ko tëjee ak léegi yàgg na terewul ñu bari dem di ko ziyaare ji li ko waral di nit ñu baax ñu bari ñañ fa suul waaye itam ñu bari ñoo xam itam denc nañ leen foofa euh, ci armeelu Soumbédioune yooyu euh, dañ ciy dellu si ak Cheikh Abdou Khadre Mbacké Seck ak aliwul Diagne ci reportage. ci sëkk yi atub 1972 lañ ci gëj a denc nit armeel yi lañ daan woowee bétuwaar ndax li mu jege woon abattoir yi fii nag taarixam dafa am lien bu am solo ak cosaanu lébu. fukki borom këru lébu ak ñett yu ëpp ñoo jël seen titre foncier fii ci géej gi joxe ko pour mu nekk armeeru Ndakaaru lu ko waral yooyu jamono fii ñu tabax tey grande mosquée de Dakar moo doon armeeru Ndakaaru ba ñu jàppee ne dëkk bi mu ngi yaatu ba egsi foofu lañ ko toxal àndiku ko fii. ci sëkk yi kilifa diine ak kilifa aada yu bari lañu fa denc. lu ci mel ni rakk ci Serigne Touba. ba tax na armeeru Ndakaaru yi ku baax ku ne ak foo bokk fu ne ci wàllu lislaam moo xam ndax xaadir nga Cheikh Tourate yi fi ñu denc moo xam ndax murit nga ndax am na benn rakku sëriñ Touba bu ñuy wax Cheikh Mouhamadou Dié Mbacké foog naa 1943 lañ ko denc fii. soo fi ñëwee li lay gën a yéem mooy bàmmeelu Blaise Diagne yi nekk ci buntu armeel yi moom nag kenn xamul woon ban diine la bokk. ñaaña Antoine di yaayam dafa ñëw fii feebar dab ko fi te yooyu jamono ñuy faj ñu nga nekk gore. ñu yóbbu ko muy faju ji boobu catholique yi fay faj ci lañ ko tuubale loolu mu àndi ñaaña Antoine Blaise màgg dem ñi naan jullit la ñi naan catholique la. ñoo ñu ne wóorul ne catholique la ñu ne wóoruñu ne jullit la mais ñoom wóoruwul leen ne catholique la jullit yi nekk fi ne wóoru ne moo tax ñu teg ko ci bunt bi. bu ñu jógee ci wàll boobu dañuy ñëw ci lu aju ci grand place yi. Médina bari na ay grand place grand place yooyu nag euh, ñi ñu fa gën a ràññee ñoom itam bokk nañu ay nit yoo xam ni. Euh, maanaam ay troisième age lañu nekk nañu ñoo xam ne duñu ay euh, maanaam ay mag lañu euh, dem ba à la retraite sos seen ay grand place di fa waxtaanee itam lu jëm ci seeni i mbir waaye itam jëm ci seen ëllëgu njaboot loolu mooy li sabab yooyee grand loolu tax na itam ba tey am na ci reportage bu ci Maimouna Ndiaye ak Mardien ànd def ko ci dañuy ànd teewlu ko. Pa Ousmane dëkkatu fii wante du fi jug. 63 ba ndëgër ni maa ngi Médina léegi nag ay 72 yooyu ma dem parcelle. léegi nag man fii laa daa liggéey fii laa daa def tout def naa lépp fii si mu nekk nii nag moom vraiment Médina mënuma ko sori mënuma ko sori sax bu ma demee parcelle du ma fa toog même dimanche sax du ma fa toog fii laay nekk Médina. du Pa dong ndax mag ñi dañoo fonk seen maas. maanaam vendredi bu jot képp ku dëkkoon Sicap HLM Nord Foire même ba Tëngéej dañ fi tase vendredi bu ñu julee jumaa ba pare. ñu xaar def xadra ñëpp gisee ba ñu julli timis ñu soog a tasaaroo. dañu am déjà association muy conseil des notables de la Médina ñun loolu la fii tudd am na tukulóor am na séeréer am na lébu am na joola am na bambara am na yëpp a ngi fi ah. li ñuy métti lu bokk na ci ndox yu bon yi di taa ci mbedd yi xet gi di leen sonal. ku wax Médina tam di nga wax lu jëm ci calte gi eh, ci wàllu assainissement bi loolu jaaxal na leen lool ba dépassé leen eh, ñi nga xam ni nag ñoom ñooy autorités locale yi xam leen ni amuñ ci pexe ndax bokkul ci seen compétence loolu moom moo waral itam mënuñu dara ci ndox mi balle fu ne eh, ci Médina ñu ànd ci ak reportage yu Ibrahima Kane ak Xali ak Ibou Cissé. muy noor nawet Médina lu muy bouché dafa bëri mooy canalisation yi lu muy génnee ndox di ball dafa bëri pratiquement dañ dem ba dañ ko miis eaux usées yi dañuy génn si biir kër yi du dootul dem ci si si si ci ci réseau réseau réseau réseau bi di tas ci koñ bi xale yi dañuy fo di football si kii bi loolu yëpp c'est une bombe à retardement. fii ñu taxaw di la wax kër yëpp en général ay ay la. de même que man foo ma dëkk muy rue 19 parce que fii mooy rue 17 mais kooku mooy parce que maire yi fi maire yi fi aw ñëpp on les a posé ce problème là mais yàlla defagul mu mu mu mu canalisation tey boo ko tey. ba génnee ko li nga ciy génne ci mbalit dafa bëri. téeméeri at ba léegi te wàllu assainissement indeeguñ ci saafara mairie bi waroon taxawu askan bi naam ànd na ci ne assainissement gi dafa tagatémbe wante nag mën-mënam mayu ko mu saafara ko. waxante woon nañu ak mairie ville bi ñu woon dana dimbale arrondissement yi. ñu ni ko ñun benn problème la ñu am benn problème la ñu am ci àddina mooy suñu assainissement mairie ville jéem na seet nu mu ñu ciy defal mais état bi nee na ko loolu du domaine bu booy laal état bi nag mi ngi koy xayma mi ngi koy xayma dem nañu ba ñu ni sax assainissement wu Médina 6 milliards la mais 6 milliards yooyu maire yi àttanuñu ko état bi moo ko àttan. gox nag ngir suqalikoo assainissement dina ci am wàll bu am solo ndax set fu mu amul sellal ko dina jafe ndax xeetu jàngoro yee ca mën a tukkee ci màggalub téeméeru atam askanu Médina ñu ngi sàkku ci nguur gi ñu taxaw bu baax ci wàllu assainissement laata nawet biy ñëw di indiwaat yeneen jafe-jafe. Médina la ñuy des ba tey ndax euh, ñoom waa Médina yi ku ci wax ni man booy Médina la euh, bokk ci loo xam ne lu ñuy bàkkoo la booy Médina nag nekk itam slogan boobu bu ñu jàpp ni bari na lu mu mën a tekki euh, ci loolu am na ci benn esprit ñoom bu ñu ko gisee ñoom booy Médina yooyu ci lu ñuy xamle toujours rek ni ñoom ay booy Médina la ñu am na ci reportage ci booy Médina boobu boo xam ni Fatima Ba ak Alioune Diagne ñoom ñoo ko def ñu ànd ci ak yéen man Boy Médina la lilee doon ab tiitër ci ñu bëri ñu juddoo màggee ci gox bi li ko waral nag bëri na ndax ku nekk ak li tax ngay sago Médina. boo gisee ñuy wax ni Boy Médina la mooy que ni d'abord euh, c'est l'école de la vie quand tu tu es enfant de la Médina euh, bu fekkee ni doomu Médina nga dafa am loo xam ne loolu lañ la yaree fii dafa am loo xam ne aussi euh, moom la ñuy dundee ñun. mooy que ni eh, dañuy bokk ndey bokk baay dafa am loo xam ne dafa am ay ay valeurs yoo xam ne eh, si doomu Médina sañoo eh, sañoo ko teggi ci sañse beeg ci yar gi ak am xel ak lépp Médina gi xale bu fi nekk am nga intelligence du si ay yére du si ay comportement yu baaxul du si yooyu quoi si esprit la booy maintenant mën na nekk foo xam ne plus de mille personnes moo fa ne ku nekk wax mais bu waxee après nañ ko ne mais booy d'où viens-tu jamono di dox ñii di dem ñii di ñëw mu mel ni esprit booy Médina boobee moo dee ci yenn xol yi ñeneen ña dundatuñ ko. y une grande différence bokkutul parce que bon euh, par suma génération par exemple ñun doxoon nañu cër mag ñi quoi mais léegi actuellement ñi nekk Médina soo waxee ñu ne loolu daf fay jeex. Médina bi da ngay bëgg sa bopp mooy que ni dañ ñu yar si da ngay sol lu set da ngay correct. instant ay bo amul booy maintenant ay booy banlieue booy jub yooyu taxawul quoi si loolu na nga fexe ba réussir daal. bëri na ay jobkat am na ñoo xam dañoo pàccaaral dañoo bàyyeeku ñu ngi xëy sangu sañse taxaw ci bopp anglais du fii rek nag bëri na ci Médina. Médina ci wàllu politique ëllëg bi nga xam ne dëgmal nañu ko ci élection yi. jax na te demaguñu fenn ndax bu ñu gisee ci wàllu xëccoo bi euh, ci mairie Médina parti socialiste ak APR ñi ngi ci xëccoo bu tar parti democratique Sénégal ne ñu leen ko bàyyee loolu nag tax ñu jëm ci ay ëllëg yoo xam ni ci wàllu politique ci Médina nar a nekk ay ëllëg yu xaw a lëndëm loolu tax na ba Chérif Dia ak Mouhamed Dieng def ci reportage. Médina kan mooy wuutu ndem si yàlla biram sa Sassoum si ci bopp commune d'arrondissement bu Médina li wér te mooy li des ci fii ak élection locale yi bari wut wante muy PS di PDS ak APR ak ñeneen ku nekk nga naan man la man la. APR euh, pour ñun commune d'arrondissement Médina bi ñun ñoo ko war jiite ñu teg ko ci euh, résultat élection yi passé boo seetloo euh, coalition Macky 2012 bi moo gagné. fi gagné PDS bi euh, PS bi fi nekk. ñun xam nañu ki ñu yore muy suñu candidat ñu tuddee ko Cheikh Ahmed Bamba Fall fii ci Medina kenn du jaar ci kaw incha allah fii moom mooy jaar mooy dem. ñun fii ci Medina képp kuy ànd ak ñun da ngay topp suñu gannaaw mënuloo ko ñu demal suñu bopp wàcc la fa. PDS da ngeen ko xamul rek PDS gaynde guy nelaw la suñu adversaire yi ku ci nekk rek yaa ngi wane sa bopp ñun nag ñun duñ ci boole wax. xëy na peut-être expérience bi ñu am moo tax duñ ci boole wax parce que xam nañ ne askanu dina du ay wax moo leen di convaincre ay jëf moo leen di convaincre. fii li fi yewoo ci doomu aadama ëpp ñaar téeméeri junni électeurs yi moom seen lim toll ci juróom fukki junni doomu aadama ba tax na mu nekk benn enjeu électoral. ñun liste bi nga xam ne moom la ñuy teg liste boobu de ay góor ak ay jigéen ñoo ciy nekk dina am ay mag dina am ay ndaw. parce qu'en fait ñooñale ay borom ñu xarañ la yu borom xam-xam yu wóor la ñuy doon. lépp loo gis rek mën nañ ko gën a defaraat mais Médina moom dafa am ay problème bëri da am na problème cadre de vie bi. am nañu yéene bu baax mais mënuñu def lenn te ànduñu ceeg waa Médina. conseil municipal bi nga xam ne lu mat fukki parti ak juróom-ñaar nga fa ñoom ñëpp d'accord nañu àndandoo ak ñun. ni benn mairie mosu réaliser li ñu fi réaliser te beneen mairie soo ñëwee doo mën a réaliser li ñu fi réaliser. li wërta woon mooy bataille politique bi fii ak élection locale yi naar naa tar fii ci Médina di dëkk boo xamante ni politique yàgg na fii. ndax moom am na téeméeri at leen ñu ngi des Médina mbokk yi ba tey ci reportage bi leen télévision Futur Média di defal téeméeri at yi Médina am fii ñu nekk nag moom mooy rue bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Góor Naaru Guèye ah, ñoo ngi nekk ci rue 13 angle 18 loolu nag dafay tax ngeen xam ni rue yi euh, fii ci Médina yomb ko xam euh, maanaam jafe na ñun ñi nga xam ne ay booy Pikine lañu ñu reer fi dafay yomb euh, te du ñun rek ñeneen itam nekk noonu pour nga mën a xam rue ak angle yi dafay nekk lu jafe loolu nag tax na sax ba nga xam ni boo fi gëjee tuuti ci Médina ci ni ñu talee li nga xam ni mooy mbedd yi ak ni dëkkuwaay yi yokkoo Euh, pour nga réer fi dafay yomb mu mel ni kon coppite am na fi donte itam ci téeméeri at yi daanaka ci wàllu social li fi soppeeku moom bariwul ñu ànd ci ak reportage yu Fatou Kiné Deme ak Petit Ndoye. Medina non miinu ma noonu nag non Cheikh Niang bari na ci moroom mbedd Medina yi soo ko xamulee réer dana la yomb lu ko waral. xam nga aspect kii bi la nag aspect économie bi aspect habitation yi bon ñu ñu fi dëkk on se perd mais ñi fi nga xam ne dëkkuñu fi wala nga gëj fi boo ñëwee daf ngay sans dafa da ngay réer complètement parce que les immeubles qui fleurissent partout. bu njëkk ba nag wax dëgg yàlla moom boo ma waxee rii un riz deux xuma ji leen dama daan làmbatu rek mais finalement nag laa teylu. mbeddi Médina yi ku xool démb ak tey xam ni wute na. vers les années cinquante huit euh, à peu près ci la ñu commencé tali mbedd yi. parce que mbedd yëpp ay suuf la yoo parce que ñun fii lañ nekkoon di football. suñ riz bi ñun riz boo daan dem ci jàkka ji dangay ngay dox mu lay jam mais léegi c'est lisse. Euh, ko tudd mbedd Médina yi faaw nga tudd yenn koñ yi lu ci mel ni rue 11 Bayre Gueye stade Iba Mar Diop rue 22 yëngu yu bari ci wàllu koom fii la ñu koy amalee rue 23 ak rue 25 sec marché Tilène. Médina ba tey la ñuy des ak yéen ci rue 13 angle 18 fii ci rue bi nga xam ni ñu ngi ko tuddee Góor Naaru Guèye ah, ci Médina ah, fii ñu nekk nii ah, nag lañu ñu fas yéene ak yéen ci reportage yi ñu leen jagleel ci téeméeri at yi Médina am ci 1914 ba 2014 ci Médina chômage bi gis nañu ne lu fi takarnaase la waaye du chômage bi rek drogue bi naka noonu taxawaalu gi bari na fi lool mu nekk nag ay jafe-jafe yoo xam ni quartier bi di Médina mi ngi koy jànkonteel mu nekk ci quartier yi gën a ci Ndakaaru Médina Euh, téeméeri at am na ko waaye li fi soppeeku bariwul addiya Talla ak Ibou Cissé bëri na li ñuy nemmeeku ay waxambaane yuy toog ci bopp ñu Medina walla di jaabante ci mbedd yi ñàkk li ñuy def ak xataayu dëkkuwaay yi bokk na ci seeni mbébét. xale yi nangootuñu jàng métier boo jàngulee métier sa yaay dala jox añ sa yaay dala jox reer mais il faut que semence bi bari fii loolu moo tax semence bi bari fii. da gis benn xale à bas âge. xam nga toog ci buntu këram yor cigarette déjà ci loolu la ñuy boo jugee ci cigarette ci yàmbaa nga jëm sàngara. boo gisee nii yëpp bon parent yi ñoo yaratul xale yi daal. kër yi dañu xat ñëpp ci mbedd mi lañ jëm te mbedd mi beneen éducation nga fi jëlee kon donc éducation mbonteef rek moo ci ëpp quoi. situation boobu tax na ba ñenn ñi di def ak di mel naka sa dul noonu. benn bis nga tux yàmba gis ki la koy jaay xam ne lii yoon wu yoon yaa ngi dégg. ñu dugal la ci nga nga koy dugal sa poche yenn saa yi nga daje gars yi ñu jox la 200 nga dugal sa poche nga yaakaar ne mooy continuer loolu moom gis nañ ko fi. dëkk bi ni mu méttee nii day gën a pousser jeunesse bi pour ñu dugg ci loolu. mu nekk lu jéggi dayoo ci ñoom am ñun ñu ciy joxoñ ñàkk yar gi. ay baar moo ñu wër Cheikh Richard mi ngi fi Cheikh Dany mi ngi fi. parce kon dafa nekk lieu de fréquentation boo xamante ne bii n'importe quel de personne dañu doon la Médina. saafara si doole nag. mooy ñu yar xale yi ci jamono yi ñuy ndaw. Médina gox gi bokk na si ñuy njëkk sos ci ndakaaru ñi fa dëkk xëy yomboon lool ci ñoom ñu bari ci ñoom daal di à te xale yi seeni doole demewul noonu. Médina by night ku nekk xam na ni ay boîte de nuit bari na ci Médina boîte yu bari yi nga xam ne yu ñu gënoon ràññee la daanaka fii lañu nekkoon ci Médina. loolu nag tax na ba muy guddi ak bëccëg Médina dafay jax saa su ne euh, loolu itam télévision Futur Média am na benn doxantu bu mu def ci mbedd yi euh, guddi la Médina by night euh, ñu ànd ci ak Dissa Prera ak Ibou Diouf. rue 6 angle 15 ak Seyni di ay boy Médina samedi bi lii mooy seen programme. Médina chaque jour samedi la Médina moom chaque jour day xumba ah. man moom dama paar ak samay gars non dañuy toog samedi jàpp jotaay. parce que maintenant soo xoolee lépp ci biir koñ yi la. samedi soir bàyyi naa de temps en temps des fois sama gars yi laay dem toog ñu waxtaan gérer xam nga créer suñu ataaya toog gérer waxtaan nice quoi bon des fois nag am na ci gars yoo xam ne des fois guddi gi nii dañuy génn dugg ci milieu bi dem ci yenn secteur yi peut-être dem ay secteur A Almadi xam nga dem foofu ñenn ñi dem ay euh, je sais pas dem euh, Waali xam nga bon ñenn ñi gérer ko seen biir gaal toog waxtaan. des fois yenn gars yi jàpp seen buntu gaale toog waxtaan quoi xam nga affaire bi dafa yaatu quoi kenn ku nekk ak yow ni ngay dundee sa samedi quoi. Fatou moom bokk ci jëw nañu benn café bu nekk rue 25 angle 18 koñ bi ndaw ñi ci sant ak jàng la ñuy di yëngu. di dund loo xamante ne moom la mag ñi daan dund di sellal quoi autant bu njëkk ba gars yi dañ doon def chaque samedi weekend gars yi dañuy baal soirée comprendre te léegi yooyu wàññeeku na bu baax ka léegi chaque ku ci am sa anniversaire sa ngénte canta daan naa ko dund dem baali def lu ma neex mais léegi daal moom comme nag léegi dama dama jàpp ni sax samedi damay fàtte ni sax tay la samedi. beneen rue beneen ambiance rue 9 angle 28 fii concert rap la ñu fi organisé ci benn boîte de nuit bu nekk ci Blaise Diagne bi jeune di fecc fecc bu bees bi xew ci jamono. samedi bi mooy nii di neex rek ndax ak El bi nii. moo tax instant nii kenn kenn nelawul dañoo dañoo suñu lal. concert sabar boîte de nuit cant wala teg sa ataaya Medina Baye Night tànn te bu la neex la. Medina ci wàllu tàggat lu ci ràññeeku la am na ay doomam yoo xam ni itam fës nañu loolu ci li nga xam ne moom mooy sport bokk na ci Abdoulaye jaw bokk na ci yaat ma Diop ak ñeneen ñoo xam ne Abdou Aziz Kane moo ñu xamale ak ñoom ñu ànd ci ak yéen. Medina. bërëb bu indi lu bëri tàggat yaram senegal sportif yu mag yu soqeekoo ca Medina daal di am tur bëri nañ ñi ci gën a ràññeeku ñooy. bu ma jëlee athlétisme euh, Lamine Ba nekk champion d'Afrique champion d'Afrique ah ci champion d'Afrique. li tegtal euh, Dakar. wala Médine place bi mu amoon ci dakaar gis nga même même Espoir dakaar bi dem fusion ak Jaraaf am na ñu ko doon wax espoir de Médina en d'autres termes Médine euh, moo doon sooklu sportu Ndakaaru sportif yu mag yëpp fa la ñu cosaanoo wu Ndakaaru mën naa ni Médina la cosaanoo waaye tey gëdd bi dinaa amoon ci wàllu tàggat yaram daa mel ni lu wàññeeku ndem équipe bu jaraaf bu football bi mu ngi wëy di def ay jaloore. jëkk on disait le tout puissant jaraaf mais léegi xam nga lu may wax l'éternel jaraaf tu sais pourquoi l'éternel soo xoolee jaraaf ba mu juddoo ba léegi dafa nekk ci ay léeg ñu bousculer ko mu ànd ak entité yu bees yi gisoo tey jii ñen ñooy entité yu bees yi yaa ngay dégg Pikine yaa ngay dégg jàmbaar jaraaf yi ngi ànd ak ñoom. ku wax tàggat yaram ci Sénégal itam da ngay wax lu jëm ci stade Iba Mar Diop muy stade omnisport boo xam ni mën nañu wax ni itam am na kuñ ca gën a ràññee ñu médaillé woon ko ci Jeux olympiques yi fi amoon. Euh, ca Séoul muy Amadou Diaba moom Amadou Diaba moom di doomu Sénégal euh, ku ñu ràññee la ci Médina Cheikh Sadibou Diarra ak Cheikh Tidiane Diawo gën nañu xamale ak moom. piste d'athlétisme bu stade Iba Mar Diop fii la Amadou Diaba doore li tax tey jii mu doon médaille olympique ci athlétisme stade bi joué rôle bu am solo ci carrière am. ay 75 yooyu. yu mel noonu nekk xale bu ndaw parce que école mairie lañ daan jàngee di ñëw sa daan stade euh, sunu mag ñi fa daan def di tàngat donc daal xam naa c'est la door a commencé di ñëw stade Iba Mar Diop ba nga xam ne léegi mu nekk symbole bu mag pour ñun donc su ma fa demee dinaa xoolaat piste bi daan fii laa fii doon dawee fii laa doon tëbee fii na moom yàlla may ndab yu bari ba suma bunt yu ubbeeku boo xam ne daal vraiment képp ku dëkk Médina xam nga stade bi amul même ku deful sport tamit daa nga soo nekk xale daa nga ñëw stade Iba Mar Diop ah su amee match nga nga mën si seetaan su amee ay handball volley yooyu yëpp nga mën a seetaan. Iba Mar ci année 70 yi la ñu ko inauguré doomu Medina yu bari eh, di ko jëfandikoo. stade fédéral la woon jóge si stade fédéral dafa nekk centre sportif eh, kii nu ñu jógee ci foofu ñu soog ko def Iba Mar Diop ay cadre de haut niveau yoo xam ne yi jaar nañu si stade bi fi lañ daan defee fi lañ daan defee seen ay sport fi lañ daan defee seen ay kii boo xoolee am na si ay ñoom ñoom la ñu jaar jaar nañu fii. stade multisport boo xam ne ne ubbi na buntu ñu bari ñi dëkkoon si si si Médina donc ñun moom la ñuy béggee daal stade bi. war nañ ko gën a mën a defaraat pour mu mën a dimbali yeneen euh, jeunes yi dëkk si Médina bi. mbokk yi doon ànd ak ñun ci reportage bi leen TFM indil ci téeméeri at yi Médina am. fii nag lañuy ñuy yem ak yéen di leen jox rendez-vous incha ci beneen jamono bu ci yàlla àndee jërë tajee mbay jéy fay yàgg may nuru